làmbaay bi ngeen di gis ni ak yuuxu yile day firndeel kàddu Pape fay mi yëngu ci wàllum njaayu ginaar ñu ngi si yëngu ndànk-ndànk nag mais gën na fee dëgër quoi gën na fee mais bi ñu nekk nii moom ñu ngi koy gis ndànk-ndànk ndànk ndànk ndànk xëy na bala ñu kor am lu génn waaw bala ñoo war dana am lu génn gis jamono jilee non ginaar du na cher nag mais du manqué te cher gi tam ragal naa ne du cher comme yenn seer yu métti yi parce que léegi ku ëllëg bi dafa nekk loo xam ne ñëpp ñëpp ñëpp dañuy yar si koñ yi bu ñu yar si koñ rek ak li yor du mu ne ni lu waay am am ko ndaxte rek am na ci tranche yëpp. commencé si 3000 ba si 5000 boo dikkee da am ginaar te da nga am li nga li nga bëgg incha allah xam nga li gën a métti si njëg mooy luy jar luy jar junni nga bëgg koo jënd juróomi téeméer loolu mooy problème bi. mais kenn ku ne li nga am boo dikkee da nga am ginaar parce que du nii la si ñëpp jàpp rek kenn ku ne côté bi nga nekk na nga bul na nga taxawal sa bopp dëggal sa bopp na lii dama see war a dem ba jeex ñun ñëpp daan si incha allah ñëpp ay ciy génn dana am dana am ñëpp ay am ginaar ñëpp am ndawal. lenn daal lañuy ñuy jooytu di njëg aliment bi. aliment bi cher na garab yi métti na surtout aliment bi. yaa ngi jënd aliment àll bi dafa aliment bi dafa cher te bu aliment bi seeree ginaar yi mënut a yomb. ci loolu ñu ngi yaakaar ci gouvernement bu bees bile mu jàppale leen su ko defee mu mën a yomb ci ñépp